kii di sama doomi nijaay jël ma cig ndaw ma bëgg ko mu bëgg ma ñëw njaboot ni mu bari xaalis baax ci man man de dinaa wax li yàlla wax rek ndax waxi yàlla wax la war waaye du ma am ku mel ni moom dëkk noonu bi wax inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajiun di ko wax suba ak ngoon mais ba Edam pare na dee ko takk sallallahu alayhi wa sallam ko mujjee takk am na ku gën jëkkëram nag yonent yàlla moom da ko mujjee takk man nag daaw xam nga daaw daaw jëg tam si dinaa koy wax dinaa ne man yi ma jarabu ci la jarabu mooy natt mooy luñ mooy luñ la wax mbaa luñ la jox nga essayé ko man bii daal essayé naa ko lool lool gars yi daan nañ ma wax lim bi ñaata la waaye man day gisuma fu ñu bind lim waaye man bu ma ko daan essayé soixante douze lay def man soixante douze daal musuma ko ci essayé dara lu ñu sol ci sama nopp bii mu metti ma ma gis ko lu dul ca saasa sax du xaar ëllëg ginnaaw ëllëg dana def inqilaab dina soppeeku lu gën fuuf lu ma doon yaakaar a sëriñ sëriñ bu nga baal ma wax ci kaw ne dañuy bañ ku yéeg ku dul ku fi am soxla ku alxuraan ji indit nga ñëw fii jàkk ji feesagul ñi toog ci escalier yi nag mën nañ fee yem mais ca ñuy bañ ku dem ca kaw ñu ngi bañit ku yor loolu jël wax lu rëy ngoog lëf ku fay yendoo dafa fanaan war nga faa jële loo jëriñoo armaa ngi boo xam ne moo ëpp doole loolu ma ñu daan wax lappatàkki lappatàkki ak mankaani moo ko ëpp doole loolu gàllaaj yu olof la lappatàkki mankaani moo ëpp doole nawar weer ndawar weer moo ko ëpp doole fuuf arma nit ku weex la alxuraan ko wax rasul ko wax gaa yu baax yiy def téere yi nag booy defee ku sawar di yër léeg-léeg nga gis ci mode d'emploi boo xam ne dafa doy waar alxuraan yëpp njëriñ la lépp lépp lépp bismillah ñu dem de ñu ngi dem ca aj ga inna safa isib la waaw defe na nisib la mu bon la inna safa wal marwata min sahairi llahi faman hazza albayta aw ihtamar فلا جناح عليه أن يتوفى بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم شائر الله fa lu ñuy wax mbañax ñaan naa yàlla mu boole ko ci shaa'irillaahi moo di liyeyu yi liyeyu yi xame yàlla liyeyu yàlla yi wone ne ku ma gëm na ma ko feeñal fii moo tudd sahaayir jàkk ci la jumaa ci la ilqu sikla ci la ilqu taalim ci la munaan ci la mustalifa ci la baytul maqdis ci la safa ak marwa it yàlla noonu na ko foofu ko ci boole safa ak marwa te ñaari xeer la ñaari xeer la yoo xam ne dañ leen def masku nit la ñu woon yu yàlla def masku masku mooy jëndale ci liñ la bindoon def la leneen léegi la xew wi mais lu jiitu rasulillah yi daan nga gis nit ku réer tëdd yeewu diw doj mbaa borom kër bu yeewu di mbaam ngonk wala borom kër bu yeewu di seq gu rëy ci kër gi ñu yow nuyoo duñu gis kenn ci néeg bi laaj duñ la dégg ci menn réew fekk mbon ponk la ponk la mbonk mii yow la loolu yàlla daal la ko def bokk na ci li yàlla baaxe noonu na bi duma ko def saw xeet nee na lama unsilati ilayya bismillahi arrahmani arrahim amantu ala ummati min al araqi wa xarqi wa nafqi wa masqi ñeent la am na réew moo xam ne dañu mooy yàlla yàlla wax suuf wan na leen wa minhum man xasafnaa bihi l-ard am ñoo xam ne dañu mooy yàlla yàlla ni lox wan na leen fu mu nu mën a xam xanaa am na ñoo xam ne dañu mooy yàlla yàlla soppi leen si bi sulmi min alladina aadu ah ah naka la ci dëggu ah waaw naka la ko wax ah fa mu soppe gaa yi ko daal dinañ ko jàng am fa jàllnaa xiraatan waaw kay xarit aywa koonoo xiraatan xaasi ina am na ñoo xam ne dañu mooy yàlla yàlla def leen ay ëkk ak xeer nabi nag ne musuma dañ di tiit ndax loolu xeet ma sa def ci mooy yàlla sama xeet def na ko xeet bi wéetoo nañu fa suñu mooy yàlla boo xam ne wenn xeet mosu ko def ku dul kër lu góor ñu tëddante ñaari xeet rek ko def xeetu lootin ak wu Mohamed waaye ñu ci def ñëpp jaaruñu ci mu daan xalaat nag ne dinañ ñu def masku wala ñu def na xarqu wala ñu def na xarqu yàlla wàcce bismillahi rahmani rahim mu ne fekkee bismillahi rahmani rahim ci laa xame ne sama xeet bi ak lu ñu mën a def duñ leen def masku mukk duñ leen def nasku mukk duñ leen def xarku mukk duñ leen def nu mu tuuti waaw xarku moo di labal la ci ndox xarku mooy labal la ci safara nasku mooy soppi la leneen nasku mooy neyanti la dafa am yooyu yëpp ñoo daje ci alaku dafa am dafa am dawaa joo xam ne dafa toogoon di jaay xam-xam as ndaw jam ko benn jam-jam mu la tontu mu ne ko waaw jigéen bii sëy ñu mas ku jëkkëram day teñ ji ni ku jëkkëram dee wala day jàpp xadd ni ku ñu fase waa ji gàtt ndaw su ne ko kon wàccal toog ci suuf nga pare ko jox ma siis boobu ma ma gàgganti la góor ga wàcc toog ci suuf ndaw su ne ko jigéen buy sëy ba ñu masku jëkkëram su fekkee lañ ko masku luy dund la dañ ko def mbaam ngonk mbaa ganaar mbaa nag day jàppe edd ni ku ñu fase parce que jëkkër ji deegu ruuga ngi fi buñ ko defee garab nag mbaa xeer mbaa weñ day téñ ji ndax amatu ruu loolu lépp daan am gars yi baaxaayu rasulillahi rek moo tax moo tax keroog bi fàttee wàcce iblis jooy wa anna ranna lainu am def leen loolu wa anna ranna lainu qad yahdiruhu junuduhu wa raadidun min assadmi ويلكم يا أمتي أملت في هذه درة أعلى كأسي درة من أسنة أمي آه وهكذا رنا أيضا لأكل وهكذا رنا أيضا إنما نصلت أم الكتاب على غير الورى الحكمي فاتيه دفنا في دفنا في نجاكم تربو إبليس وكم من ريب ما جن بسم الله الرحمن الرحيم ين تعرف يوم خيرا لكم بين عرب دفع فوق دي duuful diine ba ak ci benn aaya fekk yow di am ko wër dañu mën a jàng nag mu jàng benn aaya aaya ba xamal lan fa la na xama ca kanam suñ borom wax ne wa rahmati wa rahm wa rahmati wasi'at kulli shay dafa jëkk jàng ne wa inna minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya mel ni yow bu mën a jàng jóg tàllal ko loxo ci conférence mu taxaw mu ne ko yéen gën a tanewu leen noo moo ngi yéen a képp yéen képp wa inna minkum la wax képp gi mu xaasab la yàlla na yéen ñëpp di ngeen jéggi siraat kon noo ngi yéen a yem gënu leen góor ga tontu ko ne ko waaye sunu borom na ne wa rahmati wasihat kulli shay fa saktubuha lillazina amanu lillazina yattaquna mu ne ko ñoon ragal yàlla kenn gënul koo def jullit boo gis muy julli bu commencé kàbbar foog iblis jax jaxal ko mais catholique yi nga gis buñ sukkee ci kanami labbe seen xel dara du ci dugg am na sax benn labbe bu ko tiitaroo benn sëriñ ne ko yéen caaxaan ngeen nekk parce que di julli si xel di dem fu nekk yéen wute ngeen ak ñun maa ngeen laaj nag lu tax yàlla di bàyyi seytaane mu di leen foye bu ngeen di julli te ñun bu ñuy julli mu dégagé ko mu ne ko danu niroowul tey ma wax la lu leer ñaari magasin yu dem bii def wurus xaalis koppar fees del bi ci des dara newu ci lu unk mbóot si ndax bu sàcc ñëwee ci ban la jëm sàcc bi sàcc xanaa sa sàcc du jëm ci ci magasin yu mbóot ci kii moom mën a tontu xam na ko rek waaw yéen yoru leen dara dara lu muy sàcc yi wut tontu na ko xam na ko rek waaw waaw mu ne ko nag maaje ay bu mu teg rek waa ñu weddi mu ne ko kon nag nanu waat maag yow sa njaboot ak fi sama njaboot ak fi futtil sa mbubb ma futtil sama mbubb ñu taal safara taxañ suñu ñaar mbubb yi langa buri ko sànni ko ci biir taal bi ñu jafal ko tuur ko essence toog fii nun ñëpp ba mu giim ñu ñu jeex ku mboobu nag kon ñu xam ne yaa ni ci dëkk ñoo ko ayca ñu fuuteet sëriñ bi ne fuuteet ñu boole ñaari mbubb yi wëñ ko ni langaa buri tuur ko essence ba mu tooy teg ko jafal ko teg ngi toog mu naan jëf jëf jëf jëf jëf jëf jëf jëf bu commencé di giim di giim dana kamaj benn waay jóg fa bant génnee mbubbu sëriñ bi safara yi mel ne dafa fekkoon mu tilim mu fóot ko paase ko mu set wécc mu yërëm ko waa ji mënoon def dóor mu ne ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu yéen a ne ci dëgg yéen a yor yéen a yor diine dëgg dëgg dëgg yéen a yor diine dëgg fatiha du lakk alaa ila laay te si lu mool kañ tor seet gis nga li ci téere yi wax ayca ñu dem lu ngeen teg waaw ñaari gaa yooyu nag kii mu ngi tuddoon isaaf kii tuddoon naila isaaf mooy ku góor ki naila mooy ku jigéen ki isaaf moo tudd safa naila moo tudd marwa ñaar ñu nobante woon lañ ci seen dëkk waaye amuñu woon moyen bu ñu mën a defee loolu yu bëgg lii yooyu daje waaye yii nag bu jaamu yàlla yépp dina am ñu fa indi beneen xalaat bu utee bu fi nit ñi ñëw ñoom ñu joxante rendez-vous màkk ñu daje fa yàlla jàppandal leen ñu def la ñu bëgg yàlla soppi nag kii doj soppi kii doj yéefar yi nag li jiitu dikk alxuraan ñuy def ku ca am tiit wala looy defal yàlla nga reye ji ko ca xeer wala boo dee jigéen nga reye ko ci xeer wi bi yonent bi ñëwee nag ba aj màkk ba àggal bëgg a ñibbi saaba yi ne ko maam ñi kat maam yi maam ñi daan nañu dox diggante bii de mu ne loolu yëfi yëfi rek la maam yee ko daan def bëgg a dem rek alxuraan daf ko na ko ci la ah inna safa wal marwa min saa'irillahi moo tax moo tax yëfi mag mat naa bàyyi ci réew du aada yëpp la ñuy dindi ci aada la woon alxuraan connaître na ko tey inna safa jaabante diggante daju yox safa wa marwata ak daju yox marwa léegi kat min sahairillaahi bokk na ci mandarga yi diine faman hajja képp koo xam ne nuyu na béyte néeg bi aw ijtamara wala ñëwul di aj dafa ñëw di umra umra ba àggal aj ba àggal fala junaha do aay nag ali ci moom an yatawafa mu jaabante bihima diggante ñaari xeer yi pour man ñu ko daan jaabante rek di yéefar taxu ku ko jaabante am musiba déedéet dama ne ci dolleeku yiw la te mu man tatawa a ku coobarawu xayran def lu baax luñ la santul lu na laa yàlla alimun yëpp na ne yokk nga lu baax luñ la santul saakirun dana fayit ku def lu baax loola kan santu ko lu dëgg alimun aji xam ne it inna la seene foore nga xam ne yëkkatu moona danañu nëbba ma ansalna la ñu wàcc minal baynaati ci laay wal udaa ak gindi min baadi ma bayyanahu gannaaw ba nga xamee ne biral nañ koy naa sunal nit ñi fi kitaab bi ci tawreet ulaayka gaa yooyu yàlla anahum rëbb na leen laaw yàlla yàlla anahum soreel na leen yërmandeem laaw yàlla wa yàlla anahum tëddoo leen rëbb laa yi noonu jullit yi ak malaaka yi ak jinne yi ci ñaanal leen musiba ñu ne faw mu ne ili la seen la ñi nga xam ne taaboo doole nañu ginnaaw wa aslahoo ñu yeew na la ñu yàqaloon wa bayyanoo ñu feeñal la ñu nëbboon ulaayka ñooñu ëttoobu dinaa nangu tuub alim ci ñoom wa anaaman tawwaabu maay ka bari lu may nangu tuub maa nangu tuub bi ñi wéy dafeel ñi des nangu tuub rahiim mooy borom yërmande ji rahiim noonu naa la mooy yéex laa rey tawaabu mooy nga tuub mu nangu bàkkaar bi nga defoon daaw ku la reyoon daaw boo ko tuub yéex gi ñu la yéex a rey nag ba ren ñëw nga réccu ko tuub mooy rahiim bi nga tuubee ñu ne baal nañ la it mooy tawwaab aayey jam la woon jam kum jaaloo ñu rey la ñoom nag ñu mujj seen doxal seen tawret ci beneen façon ku njaaloo daal te defuloon nit koo xam ne personnalité la ñu taxawal la rëy la mais soo dee ku borom poir boo njaaloo duñ la rëy ñu bàyyi la am na ñaari kilifa yu mu dal fekk na bi ñu bisi bi yees ñu defe na nag téere bii dina annulé jam ñu ne nun bi yoon du nu atte ci tawret lu ngay dem ci Mohamed moo atte ñu ñëw na bi ne leen ku ku ku sangewu day bu njaaloo dañ koy rëy ku sangewu mooy ku déggal xayri dañ koy jam ba mu dee ñu ne ah non tawret indiwu loolu ah attention na bi ne leen ah kay tawret dindi na ko fekk Abdoulaye ibn Abdoulaye ibn Abdoulaye ibn Salaam tuub la dàqale na jàng ñu ne leen damay indi tawret ñu dem au seen président bi gën a naat fekk farxaas mu indi tawret ne bi nag mënu la jàng mu ne ko liiral ma dégg muy liir di def nii baaraamam ba agsi fii rey ne mu def fa baaraamam nii sote ko Abdullah ibn Salaam ne bërëb na loxo ba tëbit ne ko teggil sa loxo liiral li fii mu liir ko ne bi ne ko tawreet moo dëppoog alxuraan dem leen leen rey leen article ba nga xam ne ansal naa wàcce nañ ko minal bayinaati ci lay yu biir wal udaa ak atti yu jub ñëw di ko nëbb min boo di ma bayyanahu ginnaaw bi nga xamee ne nun yàlla leeralal nañu fil kitaab yi ci tawreet atteb jamoon atteb njaaloo li naa si neen nit ñi ñooñu dem nëbb ko ulaayka ñooñu yal anahumu soreel na leen yërmandeem laawu yàlla wa yal anahum te du dañ di leen rëbb mukk laa i noona julit ya ak malaaka ya di way rëbb ba illaa yawmal xiyaam ñu ne faw mu ne illa la si la taabo nga rek tuub na dootu ko def ak lan wa aslahoo mu yéwénal la mu yàqoon ak lan wa bayyanoo mu leeral na mu nëbboon ñooñu fa ulaayka atuuba alayhim wa ana tawwaabu rahim waaye na la Sénégal yi nga xam ne kafaroo yéefar nañu nuur ca nem nuur ca nem te tuub te yéwénal te leeral wa maatoo ba ñu xëy dee wahum te ñoom ba ñuy dee kuffaaru ñu làmb kéefar ñooñu amul njëggal ulaayika gaa yooyu alayhim dal na ci seen kaw lahnatullahi sorig yërmande yàlla wal malaayikati ak rëbbub malaaka yi wa naasi ak rëbbub jullit ñi ajmaina mboole seen xaalidina way sax lañu fi ay ci rëbb googu layu xafafu deful oyofal anum ci yom asaabu dumay lu tonni tarfatal ay ni wala am déet ñoom yom waroon a dañu ñu ñu ñu ñu ah ah dina dóoram yàggul ci ñuy dóor lee mu démb ak kay dóor dee xam nga liy fa laa yu xafaf moo di karwaas bu dal ci diggi ginnaaw oo seen buur bi yoo jaam te ku ko def doo rëccu ilaawun buur la waaye dun bu di benn amul niir ci melo amul niir ci jëm laa ilaa de benn buur bu ñu war a jaamu mu jur jam ngay réccu du ci am illaw kudul moom su ngeen ko xamul arrahmaanu mooy defal ki ko defal ak ku ko bañal arrahim mooy fay ñi ko nanguloon rek bu àllaaxira da ngeen di laaj kéemaan waaye dañoo ñàkk fayda ne inna fi xalqi samawaati war naa doy sëkk ci bind gi ñu bind asamaan yi juróom-ñaar muy juróom-ñaari asamaan asamaan su nekk fees dell ki malaayika toojuñu ko téyewuñu ko mu def ci ndox def ci safara ndox safaanoog safara te duñu fayante waaye loolu kañ dëgg dëgg doy na dem leen ca kanam a kanam nag la aayaatin tegtal luy wane ne yàlla kenn la waaye tegtal yooyu li muy leer leer li xaw min mu ngi yel ci nit ñoo xam ne yaaqiloo ne dinañu seetantaloog seen xel yéegaat leen xam ngeen ne wa fi inna fi xalqil ardi doy na ci bind gi mu bind suufi juróom-ñaar def ci gàncax te ndox ku ko tuurule nay ñàkk nga yàlla denc ndox ci biir suuf ngay gas ba mu yàgg nga jot ndox mu samp ciy xeer def ci wurus def ci essence def ci pétrole di ci jëlal gàncax gi muy jugaat mu denc seen niiw ngeen denc seen jiw loolu xam ngeen ne doy na laayatin tegtal yi wane ne yàlla kenn la waaye li xaw mi ñeen nit yaqiloo na ñu di way xellu waaw ixtilaafu lii nag uute gi nga xam ne guddi uute na ko bëccëg ci melo uute ko moom ci couleur ñuy remplacante bu kii di àggal kii di ñëw guddi ñuul kukk ba foo ñeme ñoon ragal fa ba ca weex tàll foo ragaloon ñemeñ fa xam ngeen ne nekk na ci lu idée yi wax dëgg yàlla li ay yaatin doy waar ci nekkul yàlla di kenn waaye li xam ngeen yoo xinoo na wan nahaari leeru bëccëg gii uute gujji wasam su tëjëri li waleelu naka la ko waxe sax ci yaasin am insilaaqu leyli insilaaqu leyli an niiri doy na ci laayaatin li qawmin yaqiluun wal fulki gaal gu toll nii pake diis gann sew xeer boo ko sànni mu mu diig moom mu tëmb léppii gaal yi nga xam ne tëj yi ñu ngi tëmb fil baari ci géej gi dana daanu bi maa yen foo di jaabante yëpp loo xam ne dana jëriñ naa si nit ñi waaye nekk na ci laayatin tegtal yi wane na yàlla kenn la li xawmin yeen it yaqiluun wa maa anfala ndox mi nga xam ne mosuleen di ko tuur ku koy tuur laaw yàlla fu mu koy jële mi ne samaay ci niir yi min maa in ci taw faa yaa mu dekkale bii ca taw ya larda tool baada mawtihaa ginnaaw ba mu woowee xam ngeen ne nekk na ci laayatin tottal li xawmin yeen it yaqiloo nañu dewee xellu wa bés bari li mu génnee ci biir suuf fee ci biir suuf min kulli daabatin li ñuy wax jalaal li ñuy wax warwaraan li ñuy wax naar bët yépp génnandoo kenn ku ne di ñool ñoli te balaa génn mu bàq xam ngeen ne loolu nekk na laayatin tegtal li qawmin ñeel aw nit yaqiluuna ñu ànd ak seen xel wa tasriifi riyaa yi wëlbati ngelaw li léeg-léeg mu tar léeg-léeg mu nooy léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng léeg-léeg mu ëpp ndeyjoor léeg-léeg mu ëpp càmmoñ xam ngeen ne nekk na ci laayatin kéemtaan li qawmin ñeel yaqiluuna wa sayaabi niir yii leen tiim mu sàqar yi nga xam dañ ko tàggat du dal ci seen kaw fu ñu bëgg mu jaar mu jaar faak yebam sotti ko fa ba noppi delluwaat nekk na ci laayatin li qawmin yaqiluun te niir yi kat bay na samaa yi ñu ngi tax diggante asamaan wala ardi ak suuf te kenn tooju leen kenn saru leen amul ay jin ma ne boom liggéey bii war naa doy tegtal la ayatin wane ne kookoy kenn waaye nag ki ko mën a xam mooy li qawmin yéen nit yaqiluun na ñu ànd ak seen xel ah ñëw na waaw waaw na mu tëddati yit naat bu rëy la ko def di yit naat bu rëy la def foofu lay ci melooy boppam nee nañu waxtu wi ñëw na sama papa rahmatulah alayhi daan na wax ne bi musaan di jàng ba julli jot mu la ah julli tax ñuy jàng di kon nañ tëj téere yi nga xam ne it naat it naat jéggi dayoo jéggi dayoo ci mellal mellal naa turu yàlla yi mellal meloom mellal jëfiñam mellal njëriñ gi muy jëriñ jaam yi sababu nu soolam moo di dañ ko noon siif lanaa rabbaka melalal nu sa borom bi ngay oote ne moo la yónni mu wax nag ne mooy ki mel nii mooy ki nga xam ne laa ilaha illa huwa mooy rahman mooy rahim mooy ki nga xam ne moo bind samawaati wal ard mooy ki def ixtilaafu leyli wa nihaari mooy ki fexe ba fulk yi ñuy def tëjëri fi baari di ko def nag bi maa yen faxoon naas nda du pour moom mooy ki nga xam ne ansala min asamaai maan fa aye bihi arda baada mawtiha mooy ki nga xam ne bash fiha min kulli dabba mooy ki nga xam ne tasrif riyaahi ci coobareem la nekk wa zahabi musaqari bayna alsamai wal ard kon ndéem da ngeen doon laaj kéemaan loolu la ayaatin ay tegtal la liy wane doole yàlla li xaw min ñeen nit iaqiluuna ñu di way xellu terewul audu billah min shaitan rajim wa min annaasi am na ci doom aadama yi koo xam ne ak ñoo xam ne yetaqid am nañu àndaadan ay xiram def ko yàlla min dooni lay bàyyi fi yàlla seen xëram yooyu boo leen fa fekkee yu ubboonahum ñu ngi leen di màggal ku ubbillaahi am def leen loolu ni ñu waroon a màggale seen borom ñu nga am te ñoom cefeelu màggal goo xam ne nañu waroon a màggale seen borom la wala boo ko ubbillaahi ni ki màgg li jullit yàlla ni jullit di màggale yàlla ak na mu koy sopp ci xolam ñoom it noonu la ñu fonk seen xërëm yooya waaye daal soo estimé ba ci biir gaa yooyu sopp xërëm yi ak gaa yooyu sopp yàlla daa fekk gaa yi sopp yàlla gën a wér cofeel wala Sénégal yi nga xam ne amanoo gëm nañu ñoom de seen cofeel ëllëdu ñoo gën a taral ku ban ak cofeel li lay jëm tell ci xërëm yi ndax li tax ku dul kuy jaamu yàlla ku mu doon mu tiitee tudda yàlla kon ka mu doon jaamu bàyyi na ko kii jaamu yàlla nag bu tiitee yàlla rek lay tudd di tuddi keneen kenn du ne ci yàlla ba tiit tudd xërëm mukk ku ne ci xërëm mooy tiit tudd yàlla gaa yi ngay gis sax ñu tudde ay fonctionnaire yu nekk ci autour bu koy di am ay million ba am ci ñu sàggan sax ay julli ngir jayub àddina ku ci tiitit da ngay dem ci taali bi boo xam ne ci suuf lay tëdd di ko wax ñaanal kon wala si na amono azdadu ubban lillahi ndax laa yu fattiru ubbahum laa yu fattiru fattaru mooy firi daggantal lu am ba mu yàgg mu arrêté ba mu yàgg mu amaat ñoom seen cofeel ci yàlla du dagg benn jamono buñ tiitee mu nga fa buñ bëggee ñu nga ca buñ feebaree ñu nga ca buñ nekkee sukuraat ñu nga ca foofu la jullit tamee yéefar ndax yéefar bu ngeen àndandoo am tiit yaakaar ci muut siise ngeen àgg siise mënuñ ci dara ñee leen dem ca coy yaag moom ngeen dem coy mënu ci dara coy nag am na kilifa boo xam ne kenn du ko passé Ibrahima Diop lay tudd ñu dem ca moom mënu ca dara xam nga bu ngeen di dellu si lu ngeen di indiwaale yéefar bi moom xel mi yëpp yëpp xaroo ci ni ci guddi gi loolu gàcc daal man du moom fekk jullit bi nag danaan lu am yàlla fekke na ko foofu la ko pëwee waay waaw ala bi sikri lay tatma'inul qulub fàttaliku digg bi yàlla ci la xeli jullit di dale wala fi na amano azzadu ubban lillahi mohammed law tara boo tegoon sëbët la si na ña nga xam ne salomo jaamu nañu xërëm ba dee ceen yama leen di ceeni seen bët yi na muy buqee ko seen kawar ga na muy gudde kañ la leen di dal is yaraw na ba ñu jàkkaarloog asaaba jaanama keroog bañ leen ceene ba ñu dëgmal jaanama boo leen tegoon bët billahi la raayta amran azima jawaab ji dañ ko asaf keroog nga gis lu rëy balaa ngaa gis nit ku ñëw piir piir gis ku jëm jaanama te demagu ca ndax mbooleen lu daggoon ceew bi ngay dunda day dellu si ah àllaaxira kenn ku ne sa kawar mën naa yeew yeew fukki nit te ba nga dalee watu ba tey te la nga watu woon yëpp day ñëw moo tax bi ñu yeewee kenn génn buum ku ne ca kaw ne yow ma yuqasu bi nawaasi wala aqdaami waaw wéy yi nga dëgg yëpp bu ñëwaatee gudd nag yëpp ñëwaat saa dina ko gën a ñaaw te kaw rek poqataan yaa ngi daanu ci say faar ah sauvé yi dina mat un mètre moom kañ su fekkee yàlla nar na nga dem aljana ci lañ lay ñetti waaye mboolem kawar bu nit sax ci àddina amul aljana aljana benn kawar rek fa am yéen yéen rek ndax kawar yi ci des yëpp yëpp toroxal nit rek a tax yàlla bind ko yi ci des yëpp toroxal la ñaawal laak teg la fitna rek yéen dong na fi nekk ngir taar moo tax mu sax fi kenn du indil kenn indilul kenn coono ba laaxiraa nag yëppay dañ ba moom moo ciy des law tara doonte tegoon nga sa bët la seeni groupe ba nga xam ne Salomon jaamu nañu yéef jaamu nañu xiram ba dee kañ is yaraw na ba ñu jàkkaarloog azaaba safara sa kon la raayta amran asiman di nga gis mbir mu màgg ñu asaf ko loolu arab tuddee asaf asaf mooy dagg ay wax alquran dina ko def arab dina ko def dañu wax ne taazimul amri wala tax bii tuujibu taasiful jawaab mbir mu réeréy dina tax nit dagg waxam wala lu ñaaw loo naroon a wax dina tax nit dagg waxam kooku mooy di asaf jawaab ab xale la la dab fii dóoru la wóor bi di ko dàq ka jàpp ko mu tourné di doomi diw mi di sa xarit nga ne ko bu la diw jurul woon tey ma am lii kenn ku ne balaa ngaa fab sa bopp di ko jébbal nit war nga ko vérifier ba mu ne lu neex ci ki ngeen jëm bu ca nekkee nga taasu ci barkeem roy ko bu ca nekkul teggi ko te di ko ñaanal mu nekk ci ku ci topp ku toppul yàlla ba ngeen teer ca yàlla aaye bii rekk fi ñëw aaye bii rekk ci teew kero wax naa leen ba tàyyi ne jabar bu jëkkër gërëmee rek mu dem àjjana waaye na fekk jëkkërit yàlla gërëm ko waaye jabar ju jërëm jëkkër gërëm te jëkkër yàlla gërëmu ko ngërëm la du doon dara madame kañ ni mu mën a sëyee madame li muy defal musi te ñu ne jigéen ju mën a sëy ju ne àjjana la jëm ak ni madame mën a mën a sëyee ni muy defal musi te dem jaanama mooy musa dafa defawul yàlla dara xamul ne tubaab yi dàq fee suñu jigéen foofu waaye amuñu jëkkër ndeysaan ñoo suñu jëkkër yëpp jaanama lañ jëm doole ju ànd ak sañ-sañ jiri an lillahi yàlla rek ko am kañ la nag kañ loolu xew istabara keroog ba nga xamee ne mu ngay dañ dalu naan dootul yow du man ñuy dencalu la si na ñi nga xam ne tubion ñoom la ñu toppoon kilifa yi daan topp di buur yi di sëriñ si ña leen doon topp ñu naan leen éey topp yan la woon ah sëriñ say wax loolu buur yee wax loolu ñuy dencalu mi na la si na tabaon gaa yi nga xam ne seen addina yëpp ñu ngi ko jeexaloon ngir ñoom bëgguñu woon bëgg mu rafet ngir ñoom bëgguñu woon lekk gu rafet ngir ñoom mosu ñoo noppalu ngir ñoom ñoo dem ba seen jaanama naan leen liñ leen di yëgal kat di yàlla wunoo ak yéen dara ba ba jamono waxar raawa teg nañu seen bët xaaraa ba duma ya wa taqata at yeex takk al asbaabu sabab bu nit di ruse moroom ma mbaamu di ko ko ragale regal day deñ kersa deñ sëriñ bi taalibi da ko rek da koy dal di ñeme ngir jaane ji mu gis tey xam ne tey musiba am dootu ko rusit sabab yëpp dama koy dindi damay décroché sabab bi noge sabab sababu sababu regeel ak sababu kersa su ko defee nag taalibi bi na ko sëriñ bi na ko maa ngi lay yëgal teel ne du man nga doon toppa waxal leneen ah karwa sii ma seen ak gendarme yi la ak jaanima ji bu fi ñëw di ma jéem a taqal dara sëriñ bi kat a wax loolu te moo doon lekk addiye ji moom lañ doon béyal moom lañ doon taxanal moom lañ doon xëyal waaye tegu woon tànkam ci sunna gis na nag tey yëf yi fu mu fee mu ngi daldi dañ ko xaat mu ngi naan ko ah bul wax mukk kat ne xamoon nga ma waxoon man di ma defal dara yàlla ne wa taqata at dinaa jeexal tàkk bàyyi na moom diggante sëriñ seeg taalibe yeeg buur yeeg baadala yi al asbaabu sabab bi wegeel dañu amoon ci àddina ak ak sababu kersa ga waxaala tontu lësiina taalibe yi nga xam ne tabaxoo ñoo daan toppe ñu haa yéen sëriñ bi yaa wax lii yaa jël sama tool ba yaa ma bayloo jël sama addiye ji ñu ñëw ba seen jaanama ji nga naan ànd la woon ak man billaahi la wa am na lanaa bu nu amoon karatan delluwaat fële ca ndakaaru ba nga ootewaat ci tool yi billaahi fa na tabaroo dinañu lànk mbirum ci topp leen kama tabaroo ni ngeen weddee min naa ci ñun tey jii kasaalika yàlla ne mbir maa ngi du ma rek du ma ku topp ku toppoon ku toppul yàlla yaa ñoom yépp tey jii yu réew moo dina leen won laaw yàlla amaalum seen ñaawu jëf xasaraati ñi di way matt baaraam ati di réccu te maam déet ñoom bi xarit ji ne ñi dee ci génn mi ne naar ci safara mukk bay layu ma affaire ngoog affaire bu doy waar lu olof di wax naan réccu fekk na xamalal di fekk jëf wi ñëw ba ñu sus toppante ba sus jaane war nga naan attention du man nga du yàgg yàgg bu ma fi tudd ah waa ji lu mu defe yow an na la naa karatal ak a neexoon ñu delluwaat addina ba nga ooma rek di ma bayloo wala nga di ma laaj koppar def loo xam ne yàlla nag ne keroog kenn ku ne sa sa jëf dañ ko recevoir mandat ba ma boole leen tàbbal àjjana te safara te dootuñu génn mukk dinaa dégg loo toor sëñ Abdou Assis di wax ci waxtaanam xam naa ñu bari sax duñ dégg ay di fekk ay di lay junj naan yàlla bu yàlla dogal ñu bokk ci ñuy dañante bu ñu teewee ci kanam yàlla mooy yow bokk ak yow di xëy di gon bokk ak yow pas pas ngir mbir mbir moomu ñu dem ba mu teer nga génn ci faw faw faw faw bu dee àddina sax borom denc yow waxutuma la bu toll nii àllaaxira tey képp koo xam ne sama papa daan la wax ne ku ñu tóngoot nii ci kaw sëppeelaguñu nga wut keneen koo tóngoot ci sa kaw mais buñ la sëppee fu bon nga lor ko la tóngoo bon wax na de noppiwul de mu dem bokk yaa ngi wan ne si na amanoo yéen gaa yi oote ngëm yaa ngi wan naa su boog nit ak jinne yaay waa naas yéefar ak jullit yéen ñëpp libéré naa leen ku loo jëfandikoo leen mi maa fil ardi ci di ci kaw suuf yëpp maa ko liggéey ba mu sotti képp ku dib dànn boo reyee ab naat lew na la ku dib dànn boo reyee njombar lew na la boo reyee boo reyee li ñuy wax koobar lew na la juddule woo ko naam jaayuñu la ko waaye mokkalal rëbb rek dem ci àll bi loo am jëlal géej gaa ngi bés dell ki jël fexeel ba mën a njamlu rek ut mepp boo demee loo njamlu lew na la mën nga cee génne léegi un million maa ngi ko fi diigal pour yéen ëpp waaye wala ko kat bu leen dégg mukk xutuwaati shayatina shaytaan yi ndigali seytaane wala bu leen toppan jéegoy seytaane innahu naka seytaane adu wun noonu la mu biinun ku feeñal noonu la ku ñeel leen foo ko fekk innama yaamurukum da leen di digal bi soo yi ci luy jur bakkaar wal fasaay ak lu sare a bañ wa an taqooloo mu ngi leen di xiir ngeen di dëkkee wax alal laay jëme ci yàlla maa la taalamoona lu ngeen xamul moo di li ñuy dàgg dàggi nit ñi naan la dégg naa dañuy ñëw ne la séeréer yi tuubul yooyu yow bu sa sëriñ rendee diñ ko lekk nga ne waaw bu sa bàyyi rendee nga lekk waaw moo ci si nag bu rendee nga lekk waaw waaw jullit la waaw ñu ne la waaw loola bu rendee nga lekk nga ne waaw ñu ne waaw lu tax bu yàlla rendee doo lekk ñu ngi tudde rend yàlla kat lu mit ñu ne sànq ñu ne nag yow da nga yëpp yàlla li door a rendi nga lekk que yàlla rendi nga bañ kooku moo di xudootu seytaan yi te noonu la ñu mel dañuy indi ay exemple siyaatanil insi wal jinni suratul an'am laa jàng yooxee baax baaxum ila baax bin تغرف القول غرورا ولو سعى ربك ما فعلوا dañ laa indil ay exemple yoo xam ne nafiq yi dañ ciy dëgg waxoon naa leen fi daaw génn góor goo xam ne mu nga nekkoon ngéññeen kii xam na góor gi ne Pape Souleymane Gueye góor gu dëgër la dafa nekkoon jullit dafa nekkoon sëriñ bu góor moom sama papa xaw na niroo ji ko mënuñoo toloore dara bu naqar yàlla amul maslaha benn waaye nekk ci ci ngéeñeen di màgg itam yéefar di yor xutwaatu seytaane bi rek di ko dugal ci nit ñi naan leen sëriñ si daf leen di nax bu ngeen leen bàyyiwul perte li ñuy wax du dëgg li tax dañ leen di nax da ngay am sa jiw béy ko mu ñëw ñu ne génneel asaka bi nga génnee asaka bi ber ko mu jël ko ne ay li ci def lew na la loolu def lew moom ngay béy béyaat bu dee nii mu ne génneetil asaka bi nga génneeti asaka bi mu ne bii lew na bu lew boobu nga béyati ko mu ñëw ne génneetil asaka bi dañ leen di nax rek naa fi xëy na affaire bi man maa seet ah waa ji wax na dëgg kat naan loo génne bañ ne set na li tagaat bi ñu ne kii na waaye ba mu agsi ci Pape Souleymane Gueye te mu naqari day def na bërët ne ko sa baay bi la jur bi mu la laata jur dafa jongoon mu ne waaw mu ne ko bàyyam bu ko jur dafa jongoon door koo jur mu ne waaw mu ne ndax pare na bi nga juddoo tax tax na bi nga juddoo nga indiwaale ab waaw kañ kooku dafa ñaaw lool fii ndax tax na nga indiwaale loolu loolu sa bàyyi defoon doora alal lay maa la taalumu na faqat amul leneen li ci tegu bëgg leen a dugal rek ba ngeen wax ci yàlla lu ngeen xamul te ko wax ci yàlla lu xamul musiba dal la wala nga def bàkkaar te buñ la ko baalu dañ lay duma wala nga def muxaalifate sarax te dool ngay sayit day neen ñu dem wa ida xiila ndeen waxeef na lahum ñeel yéefar yi ittabioo roy leen maa taw it ba nga xam ne anta la wàcc na ko law yàlla ci daganal li mu daganal araamal li mu araamal xaaloo ñu ne la duñu ko def bal bu ñuy siiwar daal nun nattabio nu ngi siiwar maa alfaynaa la nga xam ne fekk nañu abaana sunu bàyyi ale yi ñu nuur ca nem mooy jaamu xërëm mooy naan sàngara mooy lekk mét yàlla ne ah loolu du tontu di ab ayatba'uunahum walaw kaana abaahum laa yaqiluuna asab istifham googu dafa am atif boo xam ne ci lañ ko atifal far ko moo tax du neex a dégg maanaam kaay leen topp kaay leen topp waa ndakaaru ci li ñu nekk nga ne dunu ko def la sunu maam ya doon def la ñuy def yàlla ne ah donte seen maam ya la mu doon def du dëggit da ngeen koy topp ba bàyyi dëgg gi donte la ñu nekkoon du dëggit da ngeen koy di topp gaañu jaru ko nag comme lii la maam yi nekkoon te dëgg fay ne bàyyi leen ko dem ca am déet wala yaxtadoona maam ya xamuñu woon laa yaqiluuna ànduñu woon ak walaw kaana doonte nekkoon abaahum seen baay yooyu ngeen ne ñoom ngeen di siiwal laa yaqiluuna xel wuñu mbiri diina shay a dara wala yaxtadoona jubuñu jëm ci dëgg it foog ngeen toppale wama li wama sulu la sina am déet wama sulu la sina kawaru maa ngi joxe exemple ci ki di yéefar mook ki koy oo jëme ko ci lislaam ni ñu mel ki fekk ab yéefar nga di ko oo pour jubbanti ko yàlla ne nii la ñu mel ni ñaar ñii wa masulul lasina seen gaa yi nga xam ne kafaroo yéefar nañoo ña leen di oo ci diina ka masulul lasina mu ngi mel ni sàmm bi nga sàmm sàmm boo xam ne yéen xequ mu ngay xaacu gàtt boo xam ne laa yasma oo déggul la mu koy wax mu ngi mel ne nag woo naan ko waññeekul ay nag wi waññeekul nag wi dina dégg baat bu riit fii waaye xamul luy waññeekul am déet sam ak faam mu déggul bokkul yàlla ne dina dugg ci napp bi waaye dégg gi du ñëw xam nga dégg ñaar la ma wax ndànk nga ne dégguma ci wala ma lakkala bambara nga ne dégguma ko bën biir yi ak yàpp mbaam xuux ak deret ja pour putam gàtt tudde weneen te wuru yàlla nga ne laata rendee ko ko wala nga ne xoosaa rendee ko xam ne jéggi dayo ba lekk xam ne ñetti prix gis nga gàtt koo gis muy waaxuy dem dafa am benn siddit bu jàpp ci ci ci dëgëj bii jaar ci loos wi jaar ci yaxi diggi ginnaaw bi génn gi ca geen ba ci côté droit ak gauche li muy sol nag solom boobu li muy sol ci deret sobe la mais li ci def yëpp baax na ñu bëgg balaa nga koo lekk nag nga dog fii naj ko deret jooju turu ba jeex li ci def nga raxas lekk dana jow boo ko xottee boo ko sottee dénku ko lakk ka mbaa nga togg ko day woy mel ni res naar yi dañ ko lekk yëwat yi tuubul nee nañu sax moo dàq res mais dafa araam mooy daam ma mas fooxa bu la laalee ci mbuba doo ko mën a julliwaale bisimilah yi ñu ne la gàtt baa ngi dagal na tuur mais am na ci ñaari si dit yoo dul lekk fexeel ba la mu sexoon nga tuur ko nga rendi ko mu tuuru li ci des dagan léegi nag gisala koo rendi gàtt bi dee bi mu dee mu tas ci yàpp bi yëpp yàq yàpp bi yëpp lii tax medd duñ ko lekk borom risaa lax bir yu dala wax ne isaa ta ayanati najasatu sobe bu dalee ci mbubb te nga xam fi mu yem kutilat ñu raxas na alaha fa mu yem sol sa mbubb way niin sabasat bu lëntee xamula fépp la nag kon mbubb mépp sobe usilat mahala